أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله أن الله بريء من المشركين ورسوله ۖ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 ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا salaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñu leen di nuyu di leen ndokkeel di leen ziyaara si bés bii ñu bésub euh, Serigne Son bi bi di juróom juróomeeli fan si weeru koor ñu bëgg am leeral la ñu def si borom màggal gi muy Serigne Son bu Mbàkke waaw Serigne Son bu Mbàkke di doomu Serigne Touba Mbacké Xaadim Rasul ak soxna Marema Jaxate euh, soxna Marema Jaxate di doomu Serigne Mourou Assa Jaxate di waa Miwlu bokk ak Serigne Abdoulaye Mbacké ndey ak baay ñu bokk lépp ñu ko mën a waxee mu gën a àdduna 17 juin 1917 mag ñi wax nañ ni sëñ bu mu gënee àdduna sëñ Tuubaa da ko wóorloo moom moo xam lu mu si jublu Sëñ Tuubaa da koo da koo wóorloo maanaam bu nee wóorloo dafa ko nañ ko maanaam lii du puween buñ ko ko jox ba ngoon yàlla def ñu doxalee ko noonu xam nañ Sëñ Suwaybu Mbàkke ba mu gënee àdduna ba am at ak lu ak weer lu topp si la woy juróom bu jigéen soxna Mariama Jaxate wàcc liggéey boobu mi ngi si un an quelques mois si la soxna si wàcc liggéey soxna si ñuy wax euh, soxna Xari Mbaar Sylla di wéy juri soxna Sëñ Abdou Samad Mbacke mooy ki ko wéyee la loolu nga xam ni moom mooy nàmpal ween e, yàlla def bu ñu wéyalee ab diggante e, bu ñu wéyalee loolu am ñoo am benn affaire bi ne leeral la benn mbir bu ñu leeral laata ñuy sore ndax xam nañ ni Sëñ Tuubaa dafa wóolu woon maam Thierno Birahim am na ñeneen ñu maam Cheikh Anta mais li wér te mooy maam Thierno moom si la bokk. mu nam mi tamit beneen yoon bu mu woolee maam Cheikh Anta mais woolu na maam Thierno ni ko mu seetal ko soxna sa nga xam ni euh, si askan ay gor nañu tey dañuy dundee seen ñaq ba pare doon ay jaamukatu yàlla maam Thierno ba mu wër ba yàlla def mu gis euh, sëñ Modou Assa Diakhaté ba ba yàlla def lu mu def euh, sëñ Tuubaa jël na fa ñu bëri foofu si kër gi yamul soxna Marema Diakhaté rek waaye sëñ Tuubaa jël na fa ñeenti soxna yu bokkul ku mel ne way juru sëñ eh, sëñ Saalihu Mbàkke muy soxna Faati Jaxate ak soxna Astu Jaxate ak ñeneen ak ñeneen waaye comme sëñ son bi na ñuy waxtaanee tey ñu yem rek sëñ son yi bu soxna Mariama Jaxate kon mu ñaa xam ni sëñ Tuubaa wóolu woon na leen lool loolu macha allah eh, soxna Mariama Jaxate nag moom bu dee si beneen wàllu ndayam soxna Jëng Silla mooy way juram soxna Jëng Silla moomu ku ñuy wax sëñ eh, Libaas Silla mooy way juram sëñ Libaas Silla moom moo jur sëñ mu ñaaw Silla Euh, kon moom foofu la bokkee si wàllu ndeyam euh, yàlla def si son bi lu ñu mën a euh, tënk ci ay mbiram rek bi way juram wàccee liggéey soxna Marème Jaxate Sëñ Tuubaa dafa ni dañ koy yóbbu si wetu soxna ami Aminata Lo ndax ñoom ñaar ñoo niroo mbir xiisa boobu siiw na ñoom ñaar ñoo niroo mbir boobu noonu parce que ku ne xam na ni soxna Aminata Lo kii di sëñ Mourou Moustapha la am ak sëñ sëñ Baara Mbacke

soxna Aminata Lo daa jaayante woon ak Sëñ Tuubaa ba loolu tey ñuy wax tey demam si loolu la sabab tey ku ne xam na ni soxna Mariam Jaxate daa jaayante woon ak Sëñ Tuubaa euh, looloo taxoon euh, Sëñ Tuubaa maanaam fonkoon ko lool macha allah joxoon ko nijaayam Sëñ Amsatu Jaxate ndax soxna Mariama Jaxate ak Sëñ Amsatu Jaxate Sëñ Alsaan Jaxate Sëñ Abdourahmaan Jaxate ñoo bokk ñoo bokk lépp ndey baay bi sëñ sëñ Modou Assa Jaxate sëñ Modou Assa Jaxate mooy doon seen seen waajur Euh, yàlla def sëñ sëñ son yi bu doon jaayantekat bu mag ndax en 1945 13 14 juillet 1945 bi sëñ Modou Moustapha wàccee liggéey yàlla dafa def mu fekk mbaam jigaan mbaam jigaan mi ngi fekk nekk loolu xiise boobu wér na mbaam jigaan mi ngi nekk wetu mbaam jigaan fala si ay toolam la woon fekk fa woon sëñ sëñ son yi bi yàlla defee sëñ Modou Moustapha wàcc liggéey ba ñu denc si ginnaawam te moom yëwu si dara. loolu doonoon lu ko lu ko lu ko métti lool lool lool ba mu jógee euh, far ñu koy wër si toolam yi ba fekk mbaam jigaan bu ñu ko fekkee mbaam jigaan si nañ ko yëgal mbir mi ni ko yàlla de yóbbu na sëñ Mourou Moustapha ba jot nañ ko denc ba loolu metti woon ko loolu loolu tax na sëñ Son yi bu Mbàkke moom si bopp mu boppam 1914 juillet 1945 boobu loolu tax na jënnaatul tuubaa maanaam danaan na jënn Touba mais li gën a wér mooy bu jënnee Touba du yàgg du yàgg àll lu mu gudd guddee fanaan si ndax ji da doon jaayante ndax loolu nu mu ko méttee woon jaayante googu moo waraloon jaayante googu moo waraloon ba ba ba nu muy génn wàccee liggéeyam 1991 yàlla dogal na ni génnam sorewul maanaam du du fanaan àll loolu sëñ Son bu daan na ko def ndax rek li li amoon noonu diggante ak sëñ Modou Moustapha si ñu am leen leeral rek bu ñuy def si sëñ Son bu dafa am lu lu jafe si sëñ Tuubaa bi mu amee lu jafe si sëñ Tuubaa mooy bëriwul ñi ko am si njabootu sëñ Tuubaa bu amee ñu ko amee bëriwul mooy bés Sëñ Tuubaa daa wóolu Sëñ Amsatu Jaxate boobu mi ngi féete Touba bu mu ko wooloo ni ki indaaleel Sëñ Suwaybu yàlla def mu ñëw njaareem boobu Sëñ ngi njaareem mu indi Sëñ Suwaybu ñu toog euh, ñu toog maanaam ci kër gi sëñ bi mi ngi kër gu mag bi sëñ bi sëñ ñu toog def nañ fa ab ab ay fan sëñ bi woolu woolu Sëñ bu ni yobal ndaw ñi nañ ko wool Sëñ Suwaybu buñ ko wooyee Sëñ Suwaybu waaye na wax si tu jaxate mu toog yàlla def sëñ Suhaybu bi wuyu si ko si xis boobu si yooyu noonu la ko eh, sëñ Tuubaa defalee yu bëri bëri bëri ba ataaya jooju ñuy wax sax sëñ Tuubaa moo ko tàngalal si loxoom te loolu muy lu jafe sëñ Suhaybu bu sëñ Tuubaa tàngalal na ko ataaya si loxoom jox ko mu naan waaw ba sëñ Suhaybu bu si waxtu ndaw mi ngi ne ne ngi fàttaliku si ab diir mu nekk ak sëñ Tuubaa xam ne ñoom ñaar rek a nekkoon si kees gi

ba attanu ko mi ngi def effort pour yëkkati kees gi suñ jubaa ni ko son bi xanaa waxoo bismillahi si la suñ son bi doo koy wax bismillahi rahman bismillahi si la kees gi daaga gaal gi daaga oyof mu doog koy yenu si boobu lu bëri xew-xew na fi nga xam ni suñ bi dund na ak suñ tubaa xam ni bëriwul ñu ko ñu ko dund ak moom euh, si loolu la ko suñ tubaa si la suñ tubaa woo yónneel jaxate bi suñ Eh, si la Sëñ Tuubaa tàngalee ataay jooju ñuy wax mu jox ko ko eh, mu naan si ataay ji macha allah seet sëñ bi jox leen ataay si loxo boppam ba pare jox ah, jox ko benn gaal gu am ay yére eh, Sëñ Tuubaa si la sëñ am sa jaxate sëñ son yi bu nee na maa ngi fàttaliku boo jataay boobu man la sëñ am sëñ am sama nijaay sëñ am sa jaxate ak sëñ Sëñ Tuubaa mais ne Sëñ Tuubaa mi ngi may mi ngi laaj. nee na mi may laaj mu ni son bi est-ce que xam nga lu tax ma ma ma ma jox la lii nee na boobu waxtu ndaw nee na boobu mi ngi bëgg a tontu waaye si am su jaxte da koo këf ndax bañoon na mu tontu leneen lu wuteeg xam nga am na naa xam ni kenn du ko tontu sëñ bi lu mel ni déedéeg leneen kenn du ko wax sëñ bi euh, te boobu comme tout tànk la si am su si am dafa dafa dafa këf kàddu bi ni ko mbàkke boo ko boo ko dimbalee si loolu de mu jël. mu ni ko dama bëgg mu mu wattu alxuraan te di ko jàngale defe naa ni loolu topp na sëñ Suhaybu Mbàkke loolu topp na bu Suhaybu Mbàkke sëñ bu mi ngi nee na maa ngi fàttaliku bés boobu sax euh, bés boobu maa ngi fàttaliku bés boobu nga xam ne sëñ Tuubaa xisam bu siiw bi ma nga xam ne moom la defoon si yoonu géej gi Gabon maanaam bu mu weeroo bu mu wooree weeru koor gi ba weeru koor gi jeex mu mu jënn amul muurum koor nee na bés boobu maa ngi sangu jënn si lu mel bayal ni suñu borom digal nga ma ma woor weerub koor woor naa ko ni ma ko santee defee naa ko waaye lii nii dama amul muurub koor mais fësee yéene naa ko suñ tubaa nee bu mu ñëwee si bayaal boobu di di waxta di di di di di julli mel ni iit korité eh, ñaari xale yu ndaw romb ko boobu ñoom xamuñu luy julli ñaari xale yu ndaw ñu ngi ko romb di xale yu ndaw ñu ngi ko romb di di ko reetaan ndax rukkoo sujjóot boobu mu doon def ñu ngi koy reetaan sëñ am sa sëñ son bi nettali na ni keroog bi sëñ son sëñ Tuubaa di nettali loolu sëñ am nee na moom loolu mi ngi koy fàttaliku si jotaay boobu ba tey kon kooku mooy sëñ son bu xam naa ni xam na waxtu bi di si du ko mën a matee ndax sëñ Tuubaa son bu moom xajul si xajul si waxtu yu mel nii xanaa dañuy am lu ñuy jukki rek leeral ko jaam yi kon kooku moom mooy sëriñ son bu Mbàkke ñëpp xam ko nag si njàngale jàngale si daaram alxuraan boo xam ni ñëpp jaar nañ fa macha allah ñëpp jaar nañ si daara alxuraan boobu noonu macha allah ñëpp jaar nañ fa si zone bi doon ku ku ku ku dëddoon àdduna doonoon ku ku dëddoon àdduna nekkoon borom xam-xam te bëggoon wàllu faj daanaka mën nañ ni moom docteur la woon rek waaw parce que ku bëggoon wàllu faj la macha allah ku bëggoon wàllu faj kon kooku mooy si zone bu Mbàkke si gàttal rek kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 على الورى اصطفاه من أبداه رحمة كل بعدما هداه هجو صحب الكرام بيدت بعد مجاعدة التي قدت ذل الذي عبى العبادة فلا يذال والماهي ما فلا بركة المختار ليست الغريم ونور ساتئ ليس ينسرم أبا إله تعالى إله إمام نور الذي تعالى للمصطفى وجهت خدمة سفت بشارة له وعداء نفت للمنتقى وجهت ما قد زبا جملة ما لم يرد لي فذهبا هدم ربي بالنبي بنا درر ليتوجى وزهزى الغرر ملكني الملك نعم الملك مخجل من قد مروا أو سلكوا ملك الملك نغم الملك مخجل من قد مروا أو سلكوا نفى بخدمة إلهي المعين بقدر ذاته العيوب واللعين إن امتداح المنتقى سلبا خيرا كثيرا بردا فانسلبا لغيرنا نالين سرمدا وليس ينهنا ولقاك مدا شقال الشيطان كون المنتقى سيدا وهو يلاقي ما انتقى يدعو لدار الغلاز به ولو مدلاز توافوا بين السعير واللذا توافوا من لما يدور دلزا المال بين الحميم والدريق المباك لا يزال بالسريق نفاه قبل لسوان الله قد أن ولا إله إلا الله إلى سوى مغتير لي يديب وساقه إلى سوانا رب لغيرنا الهدانا والحسد وتتوجه لغير مفسده رد مكائد لدا إلى لدا باق ليتقم قبل من هدى جلال ربي تعالى أتلا جلال ربي تعالى أتلا إلى سوانا دررا فناتلا يقي قلامي الخطا والسهوى باق كفاني الهدى واللهوى ما الذي له البرايا والزمن درا نخاني قبل قاد للأمن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 te sàkk suñu borom mu tuub jéggal ñu ñun ñëpp suñuy rëcc rëcc ak suñuy ak lépp loo xamante ne def nañ ko naka sudul noonu ci biir weer bi mbokk yi ñu ngi wax tey ci turu suñu jëwriñ sëriñ Ibrahima Cissé muy jëwriñu daara Majmahun nii ñu ñëwoon tey ak yéen ci màggaluk sëñ Souhaïbou bi diirug bi koor gi tàmbale lañ tàmbale nekk ci li jëm ci màggal gi ci di jàng ay alqur jàng alquran ay kaamil alquran ak ay limu xasida ngir jëmmalee ko bis bi jamono ji fi mu toll moo tax jafe daja dajaloo jafe moo tax ñu amalee ko nii ci amelan gi lépp pour xeex ak feebar gi ñu ngi ñaan suñu borom lépp lu ci ngërëm ak lépp lu ci lépp lu ci yiw yàlla nañu suñu borom dajale ak moom ci barke Serigne Souhaïbou bu Mbàkke ñu ngi leen di tuubal bu baax ci kàddu yi ñu jël nii السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربي بما يسرى الأزهان خاف فجاء لجاي أفضل لمن لله خاف فجاء ربي بما يسرى الأزهان خاف فجاء لجاء حمد لرب كريم

اغني عني شر من برآن هاديا هدى kon santaat nañ bu baax mbokki taalibe yu teewoon fi yëpp waa daara Majmahun ni ci seen disponibilité ci seen pastef gis nañ jamono ji nu mu xatee waaye ku ci nekk def na ci pastefam ñu fi nekkul it ñu ngi koy seetaan ci zoom beeg yi ni mel kon ñu ngi leen di sant bu baax tey ñaan mbas mi wàcc fi di coronavirus sunu borom dàq ko fi barkeb borom màggal gi barkeb Serigne Sonhi bu Mbàkke di ñaanal Serigne Muntaxa Basiiru mu yàgg fi lool tànd ak wér barke borom Tuubaa